damay njëkk nuyu rek madame la ministre. ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop ministre de l' numérique euh, di teg nuyo bi ci loxo euh, monsieur attaché de cabinet sàmba Gueye. ñëw bi nag du dara luul ñu nekk ci benn guerre boo xam ni euh, nit ku nekk danga ci war a dugal sa loxo ma bokk ci partie bu tudd alliance pour la république Ndeye Tické nekk kilifa gi ñu gis ko muy récolté ay masques yu bari pour teg ko ci loxo jigéen ñi ak ndaw ñi. ak ñi nga xam ne amuñu mas pour jàppale président jàppale sénégalais jàppale boppam ci sensibilisation bi ñuy def pour mbas mi mën a jóge ci réew mi euh, ma nekk ndaw nekk ci parti bi sama devoir mooy ma jóg samay maigre moyen dem ci tailleur yi ñu sélecté ma ay masque ma ñëw teg ko ci loxo ma dem la ministre Ndeye Tické mu teg ko fi mu ko war a teg pour askan bi mën ko jariñoo donc loolu dama jàpp ni xalaat bi ci Ndeye Tické am ba tax ñu koy def fan yii yëpp nañu ñëw di indi ay masque bi ñu duggee ci réew mi di wax ay cas communautaire madame la ministre dafa gis ni cas communautaire démarche communautaire moo ko régler démarche communautaire askan bi ñoom ci seen bopp ñoom ñooy jël Mina matuwaay ñu ne yan matuwaay la wara war a jël ñu ne dañu war a takk masque tout le temps kuy génn da nga war a masque masque dañ ko war di changer moo du doy moo soo gisee parti bi ñu bëri ñëw ci permanence bi indi seen ay mag fan yii yëpp ñu ngi jaabante parce que unité bi ñu bëgg ci dëkk bi am nañ ko fi jaarale ko ci madame la ministre Ndeye Tické Ndiaye ñu préparé wu ku ne la nga mën ci masque xeebuñu dara ku nekk li nga am ci masque nga ñëw parce que ministre bi mën na ko mais duñ ko bàyyi moom kese mu def ko ku nekk da ci war a dugal sa loxo may lancé appel ndaw coalition bi ñu gën a renforcer wu pour démarche communautaire bi ñu mën a réussir mbas mi jóge ci réew mi parce que depuis lors sensibilisation madame la ministre mosu ci génnee loxoom ci waajal ubbite école bi ku ne gis na lim ci defoon pour école bi ubbi xale yi mën a jàngi yu am solo dans le département de Thiès école mujjul ubbi ñu continué waat xeex bi parce que feebar bi du ñu nangu mu daan ñu te suñ ko daanul dañuy daan kon madame la ministre daf ñu soññ pour ñu daan ko mooy démarche communautaire bi respecté distanciation yi ba pare di takk masque ci lañ nekk moo tax Thiès ngeen gis cas yu néew di fi am ay cas communautaire parce que taxawaay bi ci bi am ak l'ensemble coalition benno bokk yaakaar dafa am solo jigéen ñi dañoo bëgg ndey ticket góor ñi bëgg nañ ko mais soo xoolee sénégal bi ñu bi ñu waxee clinique day jigéen ñi dañ ci am taxawaay loolu dañ leen koy nangul loolu dafa feeñaat ci masque yi ñuy indi di ko joxe mais nag tekkiwul ni góor ñi waruñu indi góor ñi aussi dañu war roy jigéen ñi ci loolu ko xam day tikke xam ni dafa yàgg ci développement femme yàgg jiite ay jigéen moo tax enjeu bi ñu nekk ni sénégal kees jigéen ñëpp dañu takku di jàppale ma madame le ministre loolu suñu ko woon am bu ñu ko amee moom moo créé condition yi ci ci doxalinam ak melokaanam ci jàppale président ak ci yëg nit ñi aussi daf ci am solo parce que nit ñi aussi boo leen yëgul duñ la yëg yëg bi mu yëg nit ñi tax na ñoom lu ñu am rek dañuy dikk ne nañ ko jàppalee Ndeye Tické mu jàppalee ko président ñun ñëpp ñu gis suñu bopp mais tekkiwul ni ndaw ñi waruñu jóg maa ngi lancé appel ndaw yi nekk ci coalition bi di leen soññ ku ne li nga am ci masque donte deux masques la boo ñëwee nga jàpp ji man nag tey wut naa 1000 masques pour le moment teg ko ci loxo AC mu teg ko ci loxo ministre bi ministre dina am bis boo xam dina ko remise jox ko askan bi ba pare ñu continuer di leen gunge di leen wax nan la ñuy takkee masque ak nan la ñuy respecter distanciation yi. loolu mesures yi moom je pense que ne Thiès am na ci mention spéciale parce que néew na léegi ngay dégg Thiès ay cas communautaire parce que mesures yi dañ ci teel a nekk avec madame le ministre di ci liggéey ay ndaw du moom mooy wàcc di ko def mais ay ndaw yu muy jox instruction ferme ñu nekk bu fekkee dund la mi ngi ciy joxe. su dee sensibilisation mi ngi koy def bu dee masque kenn du manqué masque fii dañ fiy joxe masque chaque jour di ko yóbbu ba ci biir kër yi di leen ko jox leen rek loolu dafa am solo parce que nit ñi boo dikkee ne ministre moo ma yónni dafa ñëwoon ay masque pour ñu xale yi tàkk ko ñëpp dañ ciy daal di sawar tàcc ko te loolu dafa nekk lu lu yaatu ci dëkk bi du ñu bàyyi parce que suñu bàyyee feebar bi du ñu bàyyi kon du ñu nangu feebar bi daan ñu du ñu mës a bàyyi dañ ci nekk pour continuer xeex ko xam nga tey may wax la yàlla ji njëkk a taw maanaam mbirum mbir ministre bi dafa barkeel donc ni ñu taxawee ci permanence bi xëy yàlla ji taw ñuy joxe masque am na lu muy firnde lii lu rafet lay doon feebar bu fiy jógee lay doon te dinañ ci am ndam incha allah.